Diène bi ngeen gis ak ki nga xam ne moom mooy gàkku numéro 2 léegi nag daa am leneen lu Assane Ndiaye indiwaat li sax yàgg na man ndax man bii combat daf maa xaw a jaaxal combat boo xam ne defe naa est-ce que tëgguñu ko ñetti at wala ñaari yoon di moins yàqu na deux fois man nag li ko doon yàq war naa koo xam xanaa dinañ ko wax waaye balaa may sori Cheikh moom dina ma jegeñ Cheikh Cheikh puusal ni di nga wax ak Boy Seye de wala Boy Seye dina wax ak yow ci loo ne Boy Seye borom Kër Massar waaw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maa ngi sant borom Daaru Muxti bu mag bu baax a baax a baax maas xool ma sant sama sëriñ sëriñ Xalil Mbàkke caatu borom Daaru Muxti di ñaan yàlla saxal ko fi di ñaanal mu taxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér di nuyu waa Daaru Muxti bu baax a waa Kër Massar fi mu jógee di nuy sam papa Alpha nga xam ne moom a dugal si làmb bu lii demee ba am grâce ak moom la di koy wax duudu sama xarit suma lépp suma mag mbës ak suma rak saaliw yaa ngi dégg ñu nuyu sama papa King ak sama coach sama papa sama xarit sama lépp muy baara nekk coach école de lutte Boy Seye nuyu bu baax di nuyu waa école de lutte Boy Seye di nuyu ñi fi teew ñëpp yaa di nuyu journaliste yi fi nekk yëpp tamit voilà am na solo kontaan ci yow keppal ma ko ci kaw andi keppal ci benn rek waa langal ko fen rek na jàpp rek yow du mën a kon ñu continuer ak euh, euh, ki nga xam moom mooy Cheikh Super Jamono Cheikh bëgg naa la. waaw bisimilah rahmaani rahiim bisimilah rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur bu baax a baax a baax a baax di ñaanal sama papa Mor Fadam fa mu nekk gën a ko fu mu jugee di ñaan sama papa Balla Gaye fa mu nekk gën a ko fu mu jugee ak sama papa Bayri Sey di ñaanal sama yaay Tamareem yàlla bàyyi ko fi ak mboolem jullit xam nga sama papa président bu baax a baax a baax a baax di nuyu aussi sama papa euh, Ousseynou ba fayam depuis Kër Massar xam nga di sama group staff nga xam ne ay ñoom Sakho Dior xam nga Fifty Cent damay dégg euh, super jamono Malick Mbaye Bouba Italie xam nga Xaadim Laay Gunaas bàyyiwuma kenn sama waa staff bàyyiwuma kenn di nuyu presse bi taxaw fii yëpp xam ne dañoo bàyyi seen yiite xam nga ñëw xam nga waaw pour luy doxal làmb daal presse bi yëpp bàyyiwuma kenn góor jigéen xam nga leen nuyu xam nga di leen ñaanal ku si nekk nga dem ba yor sa yëfu bopp di santaat sama yaay bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaanal suñu waa école ñu amul combat yàlla may leen combat yàlla may leen ndam di ñaanal bala Gaye 2 maa koy ñaanal dimanche yàlla may ko ndam combat bu mu mës a bëre Balla Gaye 2 combat dimanche bi yàlla na gën a gaaw si ay combat am Balla Gaye sama papa sama xarit ñu koy ñaanal ndam am nuyu aussi sama papa Assane Ndiaye waaw parce que combat bi amaana tey ji am na ñeneen ñu ko bëggoon yàlla jaarale ko si loxoom aw ma fayam sama papa Assane Ndiaye aw ma fayam nit ku baax la nit ku am kóllëre la waaw am na solo loolu leer na nañ mais seen combat Assane Ndiaye ko tëgg sa papa nga wax combat bi yàqu ñaar yoon combat bi lan moo ko doon yàqu ñaa ñàkk a la wala ay gaañu gaañu la wala lan moo xew. non di nuyuwaale aussi sama papa Youssou Ndour ma nuyu sama papa sama xarit la. comprendre waaw di ñaanal aussi gàkko yàlla may ko ndam ñoom Siteu ñoom ñëpp maa leen nuyu. waaw man sama àdduna aw ma lu may ragal sama àdduna man yàlla rek laa ragal amaana damay jox cër nit ak respect amaana yàlla moo tuddul jour yooyu dañoo war a bëre mais échange yi carte gi leer na. kan moo gaañu woon ci yéen. man ba combat premier combat bi man maa gaañu mais vingt cinq jours avant combat. ma doon jàppale Boucher ak Njambaan ma gaañu si suñu man dama forcé woon ne sax damay bëre mais sama yaay sax wax na ma ne ko damay bëre mais après mu woo sama staff. sama staff wax ma ànd ak sama waa staff. ma préparé le trois. combat bi ñu koy régulariser lañ ma woo ne ma sa adversaire nee daa blessé. moom it mu blessé. waaw loolu lañ ma wax daal loolu laa si dégg xam nga man it waaw dama koy nangul rek parce que comme ma blessé daf ma xaa nangul dama koy nangul rek mais tamit comme que combat bi échange yàlla def na jàmm si ñuy ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm tal ak fekkee di ko ñaanal wér di ko ñaanal sama bopp le jour su ñëw ma jàpp ko duma ko daan ko incha allah. nga jàpp ko duma ko daan ko na indi leeral ci gaañu gaañoom. Boy Seye. yow itam moom moo njëkk a gaañu mais yow yaa mujj a gaañu ah. non man dara daluma. ah man dara daluma man moom mu ne da ngaa gaañu non man dara daluma. Mass xool sama caméra boobu. man ah. dara daluma. man dara daluma. ah kii na yow yaa gaañu après. man dara daluma. man dara daluma kon lu taxoon nga nga bëre loolu dañ koy dem laaj ko promoteur beeg ménager bi man dara daluma. man su ma dammee sax damay bëre si. Ah. man su ma dammoon sax damay bëre eh, si. di bëre moom du mën a ne ma. man su ma ko defee damay bëre Boy Seye loolu nu mën a nekkee. man la Boy Seye. waaw bu Kër Massar. waaw da ngaa fàtte. fàttewu ma la kay. voilà du ma demee sax damay bëre si. dara daluma. kon moom lu ko daloon nag mënu ko na bëre si mu ne. waaw moom nangul naa ko ko moo tax ñaanal naa ko yàlla suñu borom mooy ko wér parce que jàmbaar la jantal meen la def na deux sortes yàlla mooy ko si ndam comprendre nga. mu am troisième combat ne dafa blessé dañ ko koy nangul ñu muy ñu mu bëreel ma leen nekk jàmbaar du dëgg voilà mais man sam bopp laa xam dara daluma. mais bi mu wax ne moom la lay def. moo ko wax léegi ci micro yi du ma daan. waaw loolu ay coow boppam la rek man man man ku jàkkaarloog man ne danga may duma danga may daan loolu ay ay stratégie la rek genre yooyu noonu comprendre nga yooyu dawul sama yaram. man ah. Kër saar laa dëkk si biir. Ah. waaw dëkk Masar si bund bi si biir laa dëkk. daa gëmul li muy wax pour yow wala daa mënta ne. mosu ko gëm. gëmu ko déedéet. Cheikh mi gëmul ne da lay daan. mën na gëm ne daf may daan parce que moo tax mu jël sama avance mais duma yooyu muy wax noonu yooyu da ko siy maanaam mënu laa daan daal. non du ma wax mënuma daan parce que yàlla mooy may ndam jàmbaar la déggoo lu ma la wax eh, mais man man la sëy laa la wax waaw man la boy sëy waaw ma dama traîné ay at promoteur yi di joxe sama avance kenn ñeme wu bëreeg man man nekkul dama manqué problème adversaire de problème combat de ñu ngi may jox ay combat so damay mobiliser damay fecc damay neexal hmm. nante yëpp nekk sama ginnaaw Kër Massar may mbëru mbëbës Kër Massar si biir fépp nekk sama ginnaaw comprendre nga hmm. voilà dama bëgg nga xam loolu. mais Cheikh mi ci dynamique de victoire bu doy waar la waaye loolu man damaa lijjanti loolu yow. ah yow man damaa lijjanti ay dynamique de victoire man ñi ma daan ñoo gën a ës Cheikh junni yoon. ah. nanguwul loolu de dégg naa ko mu ne ah, ah de. mais jàmbaar la jàmbaar du nangu loolu. mais lan moo tax nga ne ñi nga daan a gën a ës. kàb bi yëkkati ko tuuti. bu bëggee sax ma simmi ko. voilà nii moo daax. waaw nii moo gën a leer. nga ne ñi nga daan a gën a ës fuuf. aller ak kon Cheikh asul ci yow. bu ma ko tàncee laa ba bàyyi ko. ah fii su ma ko tàncee fii ba bàyyi ko. waaw. xam nga kii dama ko noyal bàyyi ko si biir di noyal bagage yi mu yaakaar ne man ngaaka waaw mais gis nga jëmm gis nga jëmm ji bi su ma ko tàncee ba bàyyi ko gis nga fu mu teg combat bi. déedéet waay romb naa foofu di dem. fu mu ko teg moom na dem liggéey ji. na dem entraîné ji. da ngaa ja mbaaru. daa nar a daa nar la ñuy waxal na def lu ko war rek. Assane kay def na li ko war ba pare xanaa yàlla yeggale la ñuy ñaan. ñu ñaan yàlla yóbbu ñu ca bis ba. waaw yaa ngi dégg. waaw. waa Kër Massar ñu war a jënd béy. waaw jënd béy. waaw xamalu ma la. waaw man seex ñu takk jaaj yi man la sumu waay dongali. daal di njàpp fëgg ngemb yi. arbitre ne pépp génn suñu diggante ma xool ko nii mu xool ma. ma koy lekk. lek mel ni mi Serigne Bamba Mbacke. waay bu ko lekk yow it. ma lekk. déet yow man déggoo lu ma la man mbër benn mbër ñeme wu Ah, yow mbër yi ma bëreel yëpp ñu ma daan ak ñi ma daan yëpp ñemewuñ ma. ba ci moom mii dañuy jëngu pour bëree ak man. kon moom daa mujj jëngu. Cheikh daa mujj jëngu waroon soufflé fii sax 30 secondes. déet non non déet man tane moom. soufflé déet xaaral ma. déet déet déet sëy sëy déet déet ah, lii doy na waar lii doy na waar yow jëlal ma lii yow. waa yow lii doy na waar de eh, ñu ngi leen di atte jëlal ma lii yow ñu ngi atte ay waay waay lii doy na waar di waa lii lan la waa booy sa dinaa ko ah dinaa daw ah, ay ponkal xeex waa lii mas naa am yéen ah ma daw pël xaw ma daw ko daw te ma nga yaami tànk na daw ba raw ci ngóor la bokk daw ci ngóor a bokk waaye yéen waaye yéen ñi nag yéen yéen non sëy nan waaye sëy nag ay mbër ngeen nag waaye arbitre bi expliqué la rek ñun ay mbër lañ waaw mais sëy Assane si ñun ñu war a dajee dóorante ay coup sargente ay coup te kenn du dox suñu diggante waaw mais ngeen ba baar bi soufflé na lamb ay règle lii day lii day neexal lamb quoi yaram na moo tàng moom daf ma xiif ma xiif ko dañoo namante waaw mais Cheikh Cheikh sa waay mi tiitalu la wala dama lay wax leen balaa tout moom daane. waaw kenn ñemewu ko. loolu de la wax au contraire la wax man la kenn ñemewul. man sama benn morom du ma jël. Ah. soxla ma paa si làmb. amay dégg bu baax a baax. Ah, sama morom du ma jël. sa morom du la jël. kii waaw. wax ji moo bëri nii sax mu may yeb. mais kii tapet la. booy sëy bi barki alxuraanu karim tapet la. li muy wax nii gëmu ko sax bu ñu koy wax sax mu ngi tiit barki alxuraanu karim barki Seydina na laa la waatal. li muy def nii yëpp ay simb la xam nga ñoom ñi ñuy ànd la muy ñoom Mamor catégorie boobu ay kat lañ. Mamor mais kii sama papa war ma ni ma koy daanee ba pare Youssou Ndour. da jaar ba pare laa la wax. lamb ji laay xaar. bu bëggoon léegi léegi léegi léegi. Youssou Ndour laa sol daan. ma ñi ma daan ñi moom ay adversaire moo gën a diis li ma ñum daan nga lim ñi ma daan. yow ñoo daan man ñëpp laa daan maa daan Guiro daan Denzil daan Sabala daan Scorpion mi ko jàngal bëyee yaa may dégg daan Mamor bu Fass daan Ziza bu Pikine Ziza amul benn booy bu ko daan bu sumeekoo ma sumeeku moom mooy gën a dagg waaw mooy gën a taxaw. mais bu ñu ñëwee runkum ndaje barki Seydina Mouhamed laa la waatal xam ne xale. la yàlla àndal te xale lu liggéey laa wax bu jour boobaa day feeñ. man damay ànd ne dafoo ma dama xiif combat bi. mais man yaa du yoon quoi. imaginez yow nit ki préparé combat man maay sama taawu yaay. sama yaay si man la yaakaar. man ba ma blessé. avant vingt cinq jours damaa woote ne père damaa blessé ba sama père daf ma si mere woon. damaa amul lu ma metti ndax man gaynde laa man musuma yàq làmb xaw ma nu ñuy yàqee làmb déggoo ma dama doon jooy barki leeru alxuraan te moom mere na ma si mais dama koy nangul ndax sama papa la kii lu ma yaa ngi ñàkk sax de yaa ngi ñàkk combat bu nekkoon tey pare naa mais imagine nga liggéey ba combat ñu naan ay sa adversaire daa blessé te mu ngi nii nee na blessé wul. mënoon na ñëw ñu def ko yëfu góor. kii jàmbaar la ni mu ne blessé la déggoo ma mais man loolu laa si am daa blessé loolu laa si am mais jour boobaa mënoon na ñëw ñu def yëfu góor def fu góor yàlla. ñu ne bu la daa toog trois ans bëriwul man ma toog jugee samay victoire yu baax. waaw su ma neexoon dem xool leneen lu nooy. mais man gaynde laa dama bëgg nekk champion moo tax du ma xool lu nooy si làmb. lii daanaka kenn ñemew ko. waaw loolu daan ko man maa la wax dama koy duma ba pare. Ah. xoolal. waaw barke alxuraanu karim. Ah. Ah. billaahi kii bu arbitre sifflé ma ne ko xaa daw soog ko daan ko sax daanu ma ko dama koy woowaat ne ko kaayaat. faaw duma ko ba pare doo koy daan moom booy say deux. yow say deux yow laay waxal. dama lay duma doog lay daan yow sa tànk dina arrière man ma la ko wax. donc da nga ne kenn ñemew la. loolu la wax de. ko naqari daf ko ouverture saison bi ouverture bi. waaye lii sax yàgg lii kay war ta yàgg. ama loxo ñaan ngir jëmmi Seydina Mohamed. lii kay daa du yàgg. lii kay daa a koy xaar ki heure bii waroon na fekk ñu taxali ko. waaw lii ce que duñ ñu may dérogation ñu bëri ko sax ci mois d'août bi. benn yoon ah man la 15 man xaw sa ñaq na te yaram wi tàng na de. waaw mu ngi sotteekoo ndox. instant bii na ba tooy de. mais instant bii nii jarul wax ji di bëri quoi parce que combat bi déwén la jëm dañ ñëwoon pour def présentation nii rek mu jeex. mais xaar après ñu dem. mais Cheikh ñaq na de. mooy li ma la rek man yooyu garaawul bàyyi ma ma woo ñi may woo pour ñu jëndal ñu billet waaw comprendre nga après ñu dem ñibi gars yi dañoo war a dem entraîner ji. bien sûr waaw. sama personne yi nii taxaw Baara. Baara man lay xaar damay par rek mu yóbbu ma. Mhm. yaa ngi dégg maa ngi woo grand Mawa Ndiaye président ASC ah. Arafat. Maas grand Mawa Ndiaye. président ASC ASC Arafat maa ngi koy woo. as caméraman. Ah. maa ngi woo Modou Modou Gueye. Ah, ah. responsable politique APR. maa ngi woo monsieur Toumani Diallo responsable politique APR. waaw di woo Adi Sall rakku Macky Sall. Hmm. comprendre nga di woo waa SER APR bi yëpp. xam ne ñoom ñëpp sumay xarit lañ. maa leen di woo ci combat bi ñu jëndal ma sept bloc. di woo sept bloc nga soxla waaw di woo euh, grand pâté. mon ami mon frère maa ngi koy woo si combat bi. di woo Babacar borom KBZ automobile di woo maire Dieynaba Ndiaye mu jàpp si combat bu baax a baax di woo suma xarit borom Italie Lébu Ndoye xam nga ma Papa Ndoye maa ngi koy woo di woo Zeking borom itali sama xarit sama conseiller sama lépp Cheikhou juuf maa ngi koy woo si combat moom tamit mu jàpp si béy bu baax a baax di wax gars yi nañ jàpp si entraînement yi avant tout bu combat bi jege see ñu jënd béy yi. sa yaa dégg bu baax sëñ euh, Adama Sarr maire Kër Massar. le nouveau woo waaw le nouveau maire maa ngi koy woo mu jàpp si combat bi Serigne Djili Mbacké nga xam ne liggéeyal président de la république Macky saal rek moo ko bàyyi Darou Moussi maa woo mu jàpp si combat bi comme ni ko doon defee jëlal ma ay kaar ñu jóge fa la ñëw mu jaañ Fada maa ngi koy woo ministre bi maa ngi koy woo suñu ministre suñu pap suñu lépp xam ma di woo waa Kër Massar ron bi woo waa Firi delloo nante yëpp di leen wax moom la suñu waaye nañ defaraat moto yi convoi yi. di leen woo ñëpp di woo sama doomu nday caatu Kër Massar sa boxal di woo mbëru Kër Massar yëpp di leen wax nañ ñëw jàpp si combat bi ak dirigeant yi di nuyu sam papa king bu baax a baax di nuyu waa école li bossé di nuyu sam papa baara di di ñaanal Jokal yàlla suñu borom defal ko ndam si combat bi mu dëgmal. moog Kewel. yee parce que mooy suñu mag mooy suñu lépp. Jokal waa ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla may ko ndam lu sedd guy. am na solo yaa ngi expliqué di nuyu Serigne borom kër Mbaye Fall di ko wax combat bi sa combat la. nga may ma xaalis jàppale ma ñaanal ma. yaa dégg di woo waa Kër Masar yëpp parce que Kër masaar xale yi dañoo gëj a réew parce que ñoom balaa ñoo réew rek booy see war a génn. ah boo génneel la reew réew. dañoo gëj a réew. a ah, kon fi mu ne réewoon nag day commencé waat. day day commencé waat. ca Kër Masar. waaw ba ba jour bi bu may génn nag nga gis lu xotteeku. parce ah. que Serigne Bamba man saa yu may ñëw esaat su ma su ma tollee fële le rentré booy see deux rek. waaw man la su ma waay ku taxaw fii loolu man la quoi loolu si man la noonu la ko yàlla bindee depuis xale man ak ñoom la. kon dese xanaa ay làmb du dara. Hmm. comprendre nga. di ko ñaanal jàmm moom tamit parce que li ñu def fii nii. waaw dañ neexal combat bi. yëngal ngeen jaay combat bi. combat sedd de des na yeneen jàkkaarloo des na yeneen jàkkaarloo kii dañu kii dañu kii est-ce kenn du lekk moromam balaa combat bi. Eh, bu leen eh, kii maa koy njëkk a man Ndiaye la sant moom xam na loolu. Ndiaye gaynde barke eh, alxuraanu karim igéri bi di leen nuyu baa di nuyu kosu mi ngi ay ñoom jaas ñoom jaay jeen mbër yooyu wa waa Kër Masaar mbooloo xam nga waa jaxaay igéri nekk jaxaay yëpp maa leen di nuyu si sama turu kër sama papa sama xarit baara di ko wax baara combat bi sa combat la. am muy guddi muy bëccëg muy soo muy ngoon combat bi sa combat la suñu coach la suñu papa la. am na lépp la di nuyu journaliste yi fi nekk yëpp. macha allah ñoom ñëpp ay xarit lañ. dañuy déggante dañuy gisaan dañuy sekk jàmm. lam moo ñu fi bàyyi di leen ñaanal jàmm ak tawfeex. am na solo looy tàggatoo Cheikh. waaw di santaat yàlla rek. waaw di wax ci ni ko waxee wàllu mobilisation bi. waaw waaw parce bi tey jii xam gaa yëpp a géejawaay ñoo topp sama ginnaaw mm-hmm. axlu géejawaay dama leen di sant mm-hmm. di leen wax combat bii nii mm-hmm. combat jànk la combat jàmbaar la na géejawaay bépp génn ñëw soutenir ma man li si biir géew incha allah dama koy gérer balaa dara xew Lat Diop dix bolok la ma waroon jëndal si combat bii nii Assane Ndiaye ngi nii du ma bàyyi ma fenn dix bolok kii bu jour làmb jaa maa koy gën a mobiliser maa koy jàpp duma ko daan ko bu benn xiif naa ko cent dëgg la nag dañuy jaay combat bi loolu mooy yoon parce que duñu fay suñu xaalis comprendre man Kër Massar démb rek laa fa jaar kii dama kaa fekk ba xonam ama koo war a bëreel ma jugee Tëngéej ñun ay mbër lañ dañuy jaay suñu combat mais kii bu ma ko fekkoon koñam amul fi di def ma dara bu ma fekkoon sama koñ du ma ko def dara ndax fa la dëkk man fa la fii laa dëkk mais man du ma ragal ak dama lay wax loolu rek pour nga bàyyi sa xel man aw ma lu may sóoraale si àdduna man su ma fooree aw yow yow bu ñu tëjal ci néeg nii nii nii nii nii soo paree ca ngeen laa jëm te foofu aw déggoo ma xanaa yow yow yow sa jëmu bopp laa la wax yow munoo maa tere yow bu ñu tëjoon ci néeg boo sey deux barki Seydina Muhammad yaa naan ubbi leen déggoo ma yow boo sey asa yow nga ma da ngaa dox xanaa ma fi aller retour maa la ko man amoo siis lañ ma ngeen kee man ay aller retour yooyu amul saxawee nga bëgg ma ñeme billahi billahi laa la wax mbër ma la jàppee dama lay daan avant avant ma manière laa lay man maay wax ak yow xool ma man Cheikh Super Diamono maay wax ak yow. Boy Seye 2 ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp. naa la dama lay jàpp duma la daal la